jërë ngeen jëf mbokk yi tam di top sen site internet mourid.info comme ni ñu ko defee saa su ne tey ñoo ñëw fi ci sen reportage Sadio bon ñu fas wër ñi nga xam ñoy responsable politique yi nga xam ñoo nekk ci biir département de Mbacké tay ñoo fi ci kër soxna Mariama Ndiaye ñu gën ko xam ci madame Mbacké di directrice bu centre de formation CEDAF bi nekk Mbacké kon niñu def lu jox cadeau yi gi mu présenté ñu mëna dugg ci biir waxtaan wi. jërëjëf ma ngi leen di nuyu yeen ñep man la madame Mbacké Mariama Ndiaye responsable politique à Père Touba. En même temps, je suis la directrice du CEDAF de Paquet. Le CEDAF, c'est le Centre départemental d'assistance et de formation pour la femme. Le euh, CEDAF sort Mam Diara Bousso de Mbacké. Responsable femme vous savez, vous êtes ci le département de qui ci le développement et en même temps di un acteur politique tey naka nga dundee bis bi nga xam ne moom nekk tey muy Tamxarit. ah bisu Tamxarit bi rek sant rek ndax euh, ñu moytu at bu bees yi ñun yi kon nag euh, bu ñu sunu borom mayee ñu fekkewaat ko dañuy sant yàlla bu baax ndax defaluñ ko lu jar mu bàyyi ñu fi ña ko fekke woon daa tamit fekkewuñ ko ren defuñu lu tax mu yóbbu leen kon nag ñu ngi ñaanal ñooñu euh, yàlla yërëm leen te jéggal leen ñun tam di ñaanal suñu bopp yàlla ak bopp bépp jullit yàlla may ñu gudd fan ak wér fekke ak tal jërëjëf soxna si doon nañ rafetlu trop ñu fekk comme ni ko mag yi daan defee ñu fekk la ci waañ bi pour xol ba xam ndax noonu ñuy ci ray bomb ndax ba léegi soxna si ba léegi mi ngi koy defal da ko bàyyi xale yi duma ko bàyyi xale yi xam nga dama nekk ci kër gu mag muy këru kilifa di këru sëriñ te xam nga kër gu mag soo ko waxee du yor yaa fi nekk te tey su fekkoon tamit tey dama aaye dama yor di liggéeyu jàmbur tey du férié kon ñi ko ñëpp xamee férié bi suba la mais bi ma nekkee enseignante tout court dañ daan def bu ñu liggéeyee ba midi directeur directeur euh, Moussa da maa ngi koy nuyu au dañ daan may ni yéen jigéen dem leen ngeen toggi mais comme ren damay chef de service te service kenn mënu ko tëj noonu ma amaatoon yeneen engagement am séminaire moo tax dama ñëw rek daanaka ngeen ñëw xam nga ñeen loo xam naa nga fekk service ba nga naan ñëw mais bomb moom ñu ngi bomb ba léegi ndax ñun dañuy liggéey ci wàllu développement comme ni nga ko waxee ñun cere duñ ko jëndi ñun ñoo defal suñu bopp cere euh, laala ko def ko ci ay sachet sachet yi ñu ngi fële bu leen bëggee mën naa leen koo wan dañ ci dañ ci jariñu di ci wut koom ndax du man mais groupement bi ma jiite dañ ciy liggéey euh, di ci di di ci jariñu di ci ko jëfandikoo ci biir kër gi mais tamit di ko jaay day génn sax Touba te ñaan nañu yàlla tamit mu génn bitim réew. jërëjëf soxna développement parce que centre bi centre de formation critères centre de formation de la femme de la famille et du genre ministre de euh, c'est le centre départemental d'assistance de formation pour la femme So qui ma euh, assistance formation en deuxième position assistance avec une jeune fille qui, plan euh, social sanitaire ak même pour former C'est mission ci la mais ñu une mission encadrer informer assister euh, former ko en même temps loolu rolu rôle lu SEDAF te du SEDAF bi mi ngi ko implanté à Mbacké mais du pour Mbacké kese c'est pour tout le département de Mbacké kon nag loolu mooy suñu mission ci SEDAF te defe naa ñu ngi ci def suñu kéemtulaay kàttan euh, bien que yàggaguñ fi mais defe naa euh, ñu ngi ci def suñu kéemtulaay kàttan ci ci ci service bi ñu bi ñu ministre la femme dénk. jërëjëf si yooyu leeral ñu gis ne bërki dem nga jógee à la Mecque ñëw ay jafe-jafe ci sa euh, fonction. indi jafe-jafe parce que <laughs> li ma koy waxee toujours rek dem Màkka bépp jullit bëgg na ko bépp jullit bëgg na dem Màkka mais euh, ci cinq piliers l'islam yi la bokk mi ngi mel ni rek ngay ngay nga julli ngay woor. nga gëm yalla xamni euh, euh, euh, euh mohammed sallalahu alayhi wa sallam mooy ki mu euh di sàkk ak asaka tamit de Màkka ci bu ko bu ko jullit ma ne ci la bok te ma c'est pas ma première fois ma dem Màkka dem naa Màkka en 2006 bon j'étais plus jeune euh ren tamit comme yaa waxi politique xamna nañ ci ñew billet bi ministre Aly Ngouille Ndiaye moo ma ko jox ma dem ci màkk yàgg moo fa def naa fa 20 jours bi ma ñëwee toujours juste na traité parrainage bi sonalu parce que tàmm naa ko tàmm naa yëngatu man duma toog benn place parce que chaque semaine maa ngi Dakar maa ngi ci activités yi parce que sam départemental laa yor euh, màkk moom kenn du ko tëkkalee dara métti na lool mais sant yàlla bu baax rek waaw jërëjëf foofu la ñu duggee ci volet politique bi ñu gis na nga actuellement li réew responsable la ni yéen mais ñu gis ne nga parrainage bi ni ngeen ko na indi ay yëngu-yëngu bi di Touba gis ne que kër bi ñuy def lancement parrainage bërki démb à Touba hmm. am na si ñoo xam ne remarqué nañ ne ñoom ñëwuñu te bërki démb bi lancement bi di am am Mbàkke teew na waaw xam nga politique euh, sëñ bi li wax ñi mën a ànd ñooy ànd 2012 2019 bi ñu jëm kenn rek moo soxla ambition personnelle amu ci euh, benn nit moo soxla muy le président Macky Sall ñu gis ni defal nañu loo xam ni ci département bi waxuma sax au niveau national comme département Mbacké ñu nekk jaral nañu mouiller le mayo ba relever défi bi cette cette fois-ci parce que à chaque fois ñuy échouer au niveau départemental dañ ko war a daw. Euh, coow li nag wax naa la ko léegi ñu war a ànd rek ñooy ànd ñu mën a ànd ñoom ànd mi ngi mel na nga yor sa kër mu am ay néeg yu bari ñoo bokk ñu fu ñuy rootee mais ñoo bokk fu ñuy sottee unité am na naam mais unité cent pour cent kenn mënu koo am ku nekk da nga am sa vision am sa objectif xool ni ngay politiquer euh, xool ñi nga xam ne boo àndeek ñoom liggéey di nga mën a dem. loolu mo indi coalition mo indi leneen ak leneen loolu rek la mais man dégguma fi benn bruit vraiment boo xam ne mën nañ ko wax pour le moment. ñu dégg attaque yi nga xam ne ngeen ni bëri ki démb ñu gënoon attaqué monsieur le maire Abdoulaye ñu gis la keroog bi muy def ensemble ak Mbacké nga teew ci attaque yi ñu koy attaque ban réponse bi nga sew xam nga man yéen ay journaliste ngeen da ngeen dégg toujours ci rajo bi madame Mbacke nangam madame Mbacke nangam toujours ñu ma attaqué si rajo bi mais mosu leen dégg man sama tontu wala ñu may àndal tontu politique mënoo koy def te duñ la attaqué le président Macky Sall dafa war nekk suñu roy royukaay ku nekk dégg na lu ñu ko wax ndax nit ki bu ñu demee ba tam la ndëmb ngeen baal ma ci terme yi jiiñ la euh, jaam desatul la dara mais kenn déggul mu tontu te kenn musta dégg baat bu mu bu mu wax bu demee noonu man tamit euh, kër gi ngeen ma fekk ma ci jaamu yàlla di waa kër maam Thierno Ibra Faty am na loo xam ni su fekkoon juddoo woon naa neneen it am na loo xam ne waruma à plus forte raison que ma dëkk euh, euh, Jolof ak Sugeer kon dafa am lu may bañ Abdou Lahad Ka sama xarit la ku nekk xam na ni mu ngi liggéey bu wér mais ku jiitu rek naa sa tànk sa sa caay ju gàtt ji su fekkoon dafa tëdd këram bu ko rombee bu jógee dem kenn du ko attaqué. Euh, nit ñi nag sóoraale wu ñu ndigal ko fi teg wax na ko sax ci biir waxam ndax maire yëpp dañoo voté ñu élire leen mais ku kilifa xalifa général des mourides wóolu jox ko sëñ sëñ siidi mu baax mi wéruwaat teg ko sa loxo kooku du hasard am na qualité yu gis ci yow euh, attaque ndamit li ma ko waxee rek bu fekkoon day dem yoonam jàkkaarloo ak ñoom di dox kenn ko ñemee tudd mais mo nek jité commune té mbolo ñëpp yemuñu té ñëpp amuñu degré compréhension xamuñu lu weer maire wara a def xamuñu lu état wara def té duñu laaj état maire maire dafa am fu compétence am yam ngeen xam ngeen ci dara lo xamni war nako mais do dugg ci dëkk rek lo fa gis rek nga ni maire bi la loolu erreur mënu ko wessu ñaarel bi dafa dugg ci politique bi xëy dafa am ñu muy déranger ñi muy déranger xëy na ñak wolu seen bop mais muñu ko attaquer ci biir muñu ñu ko attaqué dafay jariñoo parti bi ndax monsieur le maire ko xam-xam ni macha allah rek na demb tay soko a muñu ko attaquer ci juddu kon nak pour des raisons politiques xëy wala pour des raisons d'intérêt wala xëy amna ñu bëgg jot li wala la wala ku ñak da defene ya ko xagn lo ñepp ñëpp beraliñ ko kenn ñepp la euh, euh attaque mom munta ta ñak ñàkk ta ñak mais dal ma suma sañoo sax nit bi euh dama koy faral di wax waxna ko ci seen émission ba tàyyi su waxkat yi di wax luñu xamul man may def luñu ñu mënul sëñ cheikh gaynde fatma moko moo ko waxoon man duma tontu te man suma lima koy conseiller moy bu mu tontu su demee nak yëfi ba mu jéggi dayo ndax nit ki tamit du Abdou Lahad Ka maire kese Abdou Lahad Ka dafa nekk époux am ay soxna Abdou Lahad Ka dafa nekk per de famille am ay njaboot ëllëg sa njaboot romb ñu ne ah kii de bàyyam waxoon nañ ko fi nangam ak nangam te mënoo koo dindi as gor da koy daw. di leen menacé que ne maytuñ kenn ko wax ci lenn ci luy luy dem ci walum parrainage bi ba di leen ci tettek yenn kaddu tuuma ci ci parrainage bi ne gën da def achat de vote man de dégg ngeen kuy nuyoo léegi am bopp laa njëkk commencé ndax parti bi ci li ma yëg gisuma xaalis bu ñu fi dugal tey nag ñun def achat de conscience ndax liggéey nañu loo xam ne nit ñi mën nañoo voteel liggéey nañ fi loo xam waxuma sax président mais ñun suñu bopp liggéey nañ fi loo xam ne nit ñi war nañ ñoo wóolu ndax bay ci say om nekki na dem ci koñam fexe faa wut base moo gën ñu attaqué te opposition bi ñu xaar ba gis seen candidat ba pare. Euh, achat de conscience gisuma ko su fekkee le maire Abdou Lahad Ka doon wax loolu moom il euh, damaa defe nit ki amuñu foi euh, ndax nit ki soo ko xamee gan sax bu ñëwee sa kër buy dem nga jox ko paas mun dañu def ñoo toujours maire yi. mais daf ñu jox toujours paas ñun ñi kese suma kër bu ñu fi wootee réunion nit ki mënut a nekk sa kër nga teg ko jënd teg koo jaay muy ngay réunir mu ñëw toogal la bàyyi itteem muy dem nga am ko am ko laa wax te joxuloo ko Abdou Ahad ku ne xam na li muy joxe paas yu mu joxe asaka ci li mu yor la macha allah mu ngi defal nit ñi te habitude lam la man ci seeteel bi laa bokk damay dem réunion lu bari euh, avant muy engagé wu ci politique. da def lu mel noonu da te da koy continuer tamit di def gan bu ñëwee sa kër fajaa jox ko paas loolu kenn mun ci dara mais opposition bi dañ bàyyi sos yi ak tuuma yi loolu laay wax nañu bàyyi sos yi ak tuuma ndax sitting boobu ñu doon def man après laa ko yëg après laa ko seetaan ci net bi dañuy wut buzz rek te am na ñu ma gis ci sitting yi ñu taxawoon foofu surtout benn jigéen boobu man du ma faral di tontu mais kooku dafa am lu ko doy. ndax barki démb donc am na fi passé bo xamné ñepp xam ngeen ko ko kon wato tax di décrier kenn ñun dañu xam lu bari té duñu wax ndax dañu soralé dëkk bi dëkk bi yar ak tégg lañ fi nekkee dañ koy soralé mais nag euh, politique fexel c'est l'art de gérer la la cité fexé sa askan wóoru leen loo am bokk kook ñoom lu ñu am nga ak ñom euh wanté do bëgg profiter ci occasion na xass nit ndax ka ma koy xasal jox ma dara ma yóbbu ko sama kër loolu il faut ñu éviter ko te loolu du yëfi jullit du yëfi murit du yëfi taalibe. jërëjëf gis sa càmmiñ boobu woote. unité boobu daf ko yàgg woote unité boobu ndax man bërëb ba may liggéeyee oo yàgg na faa woote unité ci lu ma wér ndax moom toujours def naan nañu ànd def benn mais département bi moo xaw a doy waar ndax ku bo il faut dara dara nit jiite ko so sooke ko wax dara ndax yow tey boo nee nañ dem kër madame Mbacke yéen ñëpp mënu leen jógoon loo leen dem kër madame Mbacke ci kenn lay jógee ñun tamit tamit la même chose fii boo nee dañ def def dara ah dañoo bëgg a jiite mais du loolu parce que def nañu remarque ni ñu ngi échoué depuis résultat ñu xool lan la xëy na bu ñu booloo xëy na ñëpp mënuñoo ñëw mais bu ñii booloo fii ñii booloo fii même bu ñu amee trois clans wala quatre clans sax ñu ànd liggéey mais unité boobu. dara nekku ci daf ko woote et puis en tant que chef religieux euh, di sëtu sëñ Touba nekk ci dëkk bi tamit soo gisee lu yàqu wala loo xam ne war naa mën a defar mu woote ko loolu dara nekku ci mais loolu gis ma ci problème. kàddu yi may tàggatoo daal sant leen gërëm leen di leen ñaanal ci bis bu tedd bii ñu nekk euh, luñ ci ñaan yàlla nangu ko te bu déwénee. ñun ñëpp yalla bàyyi ñu fi bañ fekkewaat ko té ñun ñëpp ñu am promotion ak fu mu mënti doon seen liggéey Barkel. té it ñu ñaan unité ci dëkk bi ndax jàmm moo moo ñu jikk ndam ndax kat nag président di gagné toujours Sénégal di perte Touba té muy investir Touba toujours ndax talibé la bu do talibé président de tous les Sénégalais la ni wara euh, euh, investir fédé la wara investir fii kon tam ñun tam nañu muyee la mayo takk suñu sér bu baax seeti askan wi à temps fexe jël seen bu voix kiyal ko président Macky Sall